ñoom Isaac Foster Assane Bassirou Diouf ak yooyu lu ñu leen xamee woon mooy dañu taxawoon am dëgër lay dëgër kët mais léegi ku ñu fi laaj sax kan mooy président cour suprême Sénégal nit ñi xamuñu ko. voilà te loolu jàpp naa ne hiérarchie judiciaire bi am nañu responsabilité bu mag ci situation bi am. parce que ñoom ñu jiite la compagnie judiciaire ñoom ñoo war a aussi nekk les protecteurs de cette indépendance. mais mais mais ci réforme boobu balaa ñoo tëj ci réforme boobu mooy wax dencal ma dencal question bu ndaw la du weesu bu ma ñëwee rek parce bu la neexee ñëwaat ci noter sa question nga ñëwaat ci waaj waaw man génnuma ci loolu sax mais juge dem waxuma Thierno Alassane Sall loo xamante ne nii waxuma ko comme ni nga ko waxee nii ah j'ai dit que day mer am nañu fii un plateau daaw j'ai vécu l'expérience moo tax ma waxaat ko san ne veut pas dire comme yow nu nga ko waxee que dama ne c'est nanti anti-modèle loolu moom yegguma fa maintenant par rapport ak euh, euh, justice bi xam nga sànq da nga ne en deux mille euh, la ñu gën a poser problème indépendance de la justice man a ci naka parce que li ma doon xaar mooy ñu ne ma am na ay réformes yoo xamante ne ni dañu fragiliser les juges mais waxoo ma loolu waxu pression nga ma wax alors que xam nañu ne yéen constitution daf leen a may loo xamante ne ni pression normalement warul leen a mën a dévier ci seen liggéey article 81 mu ngi naan le juge les juges ne son soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi maanaam man bu ma yoree ab dossier di juger président de la république su ma woowee def loo ma lu ma ci warta def man la neex donc mun nañu wax ne ce n'est pas un problème de système mais c'est un problème de personne am na si ay juges yoo xamante ne nii ñoom bu ñu leen nee président de la république amul droit def loo la lii ñoom ñu bàyyi loolu bu leen ministre def loo ñu def kooku système mënu ci dara juge yooyu ñoom ñoo mel noonu maintenant question bi ma ko bëgg a poser euh, parce que développé na lu bëri mais man dégguma ci mu joxe ay argument yu yu yu yu leer ci ay signes yoo xamante ni wone na ni justice bi amul indépendance léegi man ma jàpp ne moom est-ce que démissionné wul dispensaire pour dem liggéey hôpital puisque indépendance bi ngay wax ci euh, justice su Sénégal amu seeg amu yooyu CPI boo fa demee mais c'est la catastrophe gis nañu ne pratiquement ay africains la plupart du temps lañ ciy gën a jugé bu ci mujjee mooy euh, bo ak euh, l'autre là. Charles Blé Goudé. Charles Blé waaw Charles Blé Goudé li ci des d'autres africains nga gis ne États-Unis quel que soit lu ñu munti def ci àdduna bi kenn du leen mës a interpeller puisque. Euh, statut de Rome bi nga xamante ni moo mën a tax euh, CPI topp la ñoom signé nañ ko mais ratifié wuñu ko la Russie la même chose boo demee Chine ñoom signé wuñ sax bay ratifié donc les différents les grandes puissances au monde tey jii nii lépp luñ mën a def ci ay crimes de guerre ak yooyu boo ci génnee européens yi dara du leen ci fekk léegi ñun africains yi xeex bu amee fii nga dégg ñu ne la Jean Pierre Bemba jàpp nañ ko yóbbu nañ ko CPI def na foofu dix ans par la suite nañ ko boo dem na foofu def na foofu de des années génne nañ ko acquitté ko est-ce que quelque part CPI boobu gënul pire que justice u Sénégal bii nga ne démissionné nga fi. Hmm. waaw question boobu question bu am solo la euh, mais question mère bi rek man dama ci am benn anecdote am na benn boroom xam-xam bu doon naan notre prophète bien-aimé euh, injustice rek moo ko doon merloo donc même moom. daan entrer en colère contre l'injustice voilà nit ki tak aussi su fekkee nii dañoo ne rek man de homme politique Sénégal suñ fi amoon président boo xamante ni dañu ne ah waa ji day mer fekk li ko merloo mu nekk lu lu ko war a merloo mais muy def liggéeyam jub maandu du jël alal réew mi vraiment di di di xam lu ko fi indi di sacrifier pour réew mi kooku de su fekkoon day mer loolu euh, ñun ñu jël question rek lañ ko posé woon c'est pour dire question woon rek. c'est pour dire vraiment que euh, je pense que euh, am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla dama koy waxaat parce que ñun suñu nekkee des hommes politiques dañuy bëgg aussi offrir en exemple am na ñuy taxaw ñun bi ñu bi ñu duggee ci politique dañoo ne ñun victoire morale la wut <coughs> ñun du ñu nangu ñu ñuy var loolu yombul de sëñ bi yombul yombul du tout. voilà mm, mais li nga wax nii ci CPI. bërki dem ngeen commencé politique nag. Euh, def nañu cinq ans ci politique. ah bërki dem cinq ans du barki moom. cinq moom. en politique moom cinq waaw waaw mais am na ñu ñu fi def euh, période boobu chaque jour ñu wax lii tey wax leneen suba. voilà de toutes les manières nit même soo nekkee fenn ci champ politique bi même ku fi def un an. ak ni mu demee. vaaruñu la jàmbaar nga. am nga benn constance ak benn cohérence ñun loolu mooy suñu victoire li nga wax ci yi nag c'est pas faux du tout euh, loolu aussi xam nañ ko ñëpp xam nañu ni juridiction internationale yi aussi am nañ benn problème mais xam nga problème boobu fu mu jógee d'abord mooy euh, CPI ñu bari dañoo xamul nii dafa am compétence dafa am état yoo xam ne dañoo signer statut de Rome soo signé ak statut de Rome mooy accepté nga compétence yow accepté nga CPI juge say ressortissants muy États-Unis muy euh, euh, Israël réew yooyu yëpp accepté ñu compétence donc suñu accepté wul compétence bi euh, CPI mënu leen munu leen juger leneen li moom mooy le constat le constat que CPI aussi fii africains yi rek la ñuy gën a topp loolu tamit c'est un autre constat parce que c'est factuel kenn mënu ko weddi maintenant ñi ñuy topp aussi man dama bëgg aussi leneen am mooy ñi ñuy topp est-ce que li ñuy topp li ñu leen di toppee ñoo ko defak defuñu ko loolu tamit am na solo. c'est politique Gbagbo. Hmm. Gbagbo kay son cas est éminemment politique. Hmm. ah bien sûr. waaw donc Gbagbo. Euh, violence post-électorale bu RDC violence post-électorale yi am en 2010 amu ci benn responsabilité loolu nga jàpp une part de responsabilité waaw te loolu nga jàpp loolu la CPI yi wax parce qu'il a été acquitté yow journaliste nga <laughs> man <laughs> waaw loolu xam naa sa yeneen collègues yi ak ñun ñi nga xamante ni suivre nañu euh. suivre nañu vraiment dossier boobu mm. Euh, danañ danañ ci juger parce que là je pense que loolu moom doy na waar lool. Gbagbo mais mais Gbagbo nu mu mujjee dañ ko acquitté ou pas. waaw dañ ko acquitté waaw acquitté mooy lan. dañ ko acquitté il y pas suffisamment de preuves. kon kay li ma wax mooy loolu. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga cour pénale internationale ak suñu kii yu du benn foofu c'est au-delà de tout doute raisonnable. mën na am bureau procureur moo tax suñu acquitté nit. procureur yi parfois ci juridiction internationale yi dañuy def enquête plénière mais xool ndax est-ce que kii danañ ko condamné wala duñ ko condamné mais bag boolu mu fi wax Charles Blé Goudé li mu fi wax ak li nga xamante ni dem élection di bëgg kii ci pouvoir bi ñu ñu gañe la nga ne doo dem loolu nit ñëpp gis nañu ñëpp ku ne mën na juger voilà te te man bon am na lu ma ci xam man ci sama liggéey. en tout cas laay teel li nga wax noonu xam nga lu ci intéressant mooy lan xam nga souvent dañuy wax ni africain yi euh, wax dëgg yàlla ñoom rek lañu ci topp man dafa mës a am benn ivoirien bu ma def ak euh, benn euh, séminaire il y a une dizaine d'années dafa envisager problème bi ci beneen angle mu ne waaw ñun dañuy wax ni ñun suñu chef d'état yi rek lañuy topp loolu dëgg la mais affaire boo gis crime boo gis dafay am auteur am victime mm-hmm. waaye nit ñi nag duñu xalaat victime yi peut-être que ñun aussi suñu victime yi rek ñoo am chance seen affaire ñu leen di àtte n'est-ce pas mm. Mm. parce que crime yoo gis am na ay victimes am na ñoo xamante ni dañoo subir crime yooyu voilà je pense que suñ koy xoolee chaque fois ci angle auteur bi xoolee wuñ ko ci angle victime bi je pense que aussi dana ah, dana doy waar maintenant maintenant toute justice man nag idéalisé wu ma idéalisé wu ma CPI mm. fa la ñu nekk avocat lañ fa avocat laa fa fa la ñu nekk mais idéaliser wuñ ko man justice Sénégal bii. ma génn sax déjà euh, mandat d'arrêt yi muy émettre kenn du ko faale. dernièrement émettre na mandat d'arrêt contre Poutine kenn ah, lijjanti wu ko. kenn moo koy jàppi. Euh, lancé nañ fi mandat d'arrêt contre El Béchir ancien président Soudan kenn lijjanti ko donc ñenn ñi sax dañoo faalewul CPI. waaw xam nga justice man loolu laay wax CPI justice. elle peut une justice peut être imparfaite mais benn société warul nekk sans justice mu am justice loolooy problème bi moom mooy yi li mu imparfait man mi idéalise wu ma CPI jàpp naa ne am na ay imperfection yu bëri. comme justice Sénégal humaine comme justice su Sénégal. mais justice Sénégal. comme kay waxuñu waxuñu wax xam nga. donc mais justice justice justice bu ne dafa am ay imperfection léegi nag ñun suñu rôle mooy. nit ñi nekk fa di xeex. pour loolu changer. pourquoi defoo ko fii Sénégal nga démissionné. waaw léegi <laughs> lu tax defuma ko fii Sénégal loolu xam nga am na sànq kii li mu doon wax ci ci problème mu bi ma soulevé woon ci benn age mm-hmm. man loolu bi mu génnee daf ma gêné parce que am na gis nga biir magistrature euh, Mame biram Wathie su fekkoon ni laaj nañu ñaari. laaj nañu ban magistrat moo mënoon def li ma def mënuñu la citer ñaari magistrat mais est-ce que li nga def sax am na impact ci justice bi parce que ba ngay démissionné ak tey fi ñu toll nii niveau bi tey la gën a jàqu waaw mais mais loolu xam nga nit ki nit ki ma Birame Wathie nit ki da ngay am yow sa yéene nga am sa combat nga am actu yooyu posé man jàpp naa ni benn moment pour sa pour pour être cohérent avec moi-même euh, def naa benn combat bu interne avec d'autres pendant longtemps combat boobu amul lu mu jur euh, tin léegi bi muy wax wax na suñu démission conseil supérieur parce que ñun mësuñu bëgg bàyyi magistrature bi ñu demee ba justice dañ ko bëgg amul beneen ndombool tànk bi may am bu ma gën a bëgg que ndombol tànk bi ma amul justice mm-hmm. waaye ne parfois nga bàyyi loo bëgg ngir benn idéal ngir benn combat jàppoon naa ni man bi ma démissionné conseil supérieur magistrature ba bind lettre boobu lettre boobu dana am impact nit ñi parce que c'était un appel aux forces vives de la nation ne leen ah justice justice mu ngi ci crise bu doy waar force vive yi nañ ci wax sooy fàttaliku su fekkee nii yaa ngi ciy bàyyi xel 2017 boobu février bi sama démission conseil supérieur c'était très médiatisé. Mm-hmm. Mm-hmm. ñun jàppoon nañu ni foofu les forces vives de la nation danañu jël poser débat justice état bi def ci réforme yu mu ci war a def su ko defoon ñun ñu ngi atte ba tey amul ñun ñu demaat beneen sacrifice sur nous-mêmes jàpp naa ne ñun loolu la ñu mënoon obligation de moyen la ñu am. amuñu obligation de résultat obligation de résultat moom mooy jéema def dara ba pare ne lii mooy am yéene rek nga am. non mais non non juste dem non non may ma foofu rek. Mhm. c'est que man lu ma mënul comprendre mooy justice su Sénégal sa réew nga ne doxul nga démissionné nga dem dem ci justice internationale boo reconnaître ne tamit doxul mais nee nga doxul mais di nga fa xeex pour mu changer. est-ce que loolu gënoon woon yomb nekkul loolu nga xeex pour sa justice su Sénégal changer te doo démissionner comme ni nga ko bëgg a defee CPI. waaw mais Mame Birame ci nee naa la peut-être que ñi ñuy seetaan comprendre nañ ko plus que yow ñun dañoo mener benn combat interne magistrat xanaa loolu war nga ko xam dafa am obligation de réserve ñun mënuñu taxaw fii nekk ay syndicaliste di di wax. Euh, sànq bi ñuy retracé suñu carrière nekkoon na secretaire général adjoint de l'union des magistrats sénégalais. mooy organisation professionnelle magistrat yi ñu def ci lu ñu mën ñu def un combat euh, suñuy xool en 2015 bi ma nekkee substitut général bind naa benn article j'étais quand dans un combat ku ma suivre dana xam ni dafa am benn logique ñu tuddee ko le conseil supérieur de la magistrature l'indispensable réforme gis nga ci préambule article bi dañoo wax clairement ni une dizaine d'années nekk nañu à l'intérieur de la magistrature def ci un combat interne de ans bu jurul des résultats maintenant ñu ngi ñëw wax ak opinion publique bi pour ñu xam ni war na am ay réformes yu ñu am pour justice mën moom boppam loolu c'est en tant que substitut général substitut du procureur général fii cour d'appel ci laa ko bindoon en 2015 voilà jàpp naa ni étape te man tamit dafa am dara mooy je suis légaliste mm. du ma nangu parce que j'étais très gêné bi ma bi ma démissionné conseil supérieur magistrature j'étais très gêné parce que demoon nañu ba ministre bi fi nekk ne dañu may traduire devant le conseil supérieur parce que waruma en tant que magistrat bind lettre publique adressé ko président de la république boobu à l'époque ñun bi ñu waxee dañoo ne non ñun en fait def nañu loolu mais amul benn excès amul dara luñ ci wax loo xamante ni mën doo dëgg dañoo ne rek nañu gën a bàyyi xel justice président de la république na def ay réformes pour lii nga xamante ni moom mooy pouvoir judiciaire mën a amaat gëddëm waaw loolu yëpp nag ku ko def jàpp naa ni fu ñuy wax ni yegg nga frontière ba mënatuma woon dépasser foofu moo tax ñu ne ah ñu nañu démi suñu démissionné c'était pas une démission pour bàyyi c'était une démission pour yeggale combat ñu ne